coalition Pastef nañu xalaat képp ba mu des wàllu. ku mën na def ku mën nag sa bopp xam ne yow mën nga doo dem coalition da nga demal sa bopp. te li ma ci gëm ah. mooy ku dem doo am. da koy boot ci ginnaaw Pastef na nga ko defee woon waaye gis nga nag ku ndëbbi ndoy sama. boo séenee lu doo daw da nga naan wëqet ndax li fi xew bëkki dem ba njaay nag neexut a fàtte de. Mm-hmm. fii ku ne xam na ginnaaw yàlla waa Pastef ñoo lu fal ñenn ci député yi ñoo fal ñenn ci maire yi. mu neexoon waaye ba ñu amee lu ñu bëgg dañoo mooy li gars yi wax dañoo cof beru dañoo cof mu neex ñu beru dem ba ber ber seen daara mhm. xam loolu fàtte xaju fi kon tey man bu ma doon Pastef wala ma nekk ci ñuy dogal damay demal sama bopp bàyyi la ñoom ñu demal seen bopp parce que tam mënuma laa fal jiital la nga may faqastal sa pexe bu juboon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du mhm. am dañ doon wax naan majorité parlementaire bi pàcc ci boobu élection yi jeexee mhm. ñu ne c'est pour la première fois ñu gis ne am na tuuti balance ñu dem ba yenn luwaay duñ ko mën a voté lan moo tax ña nga xam ne da nga leen faloon ñu foog ne tey bu ñuy fal wala bu ñuy jël yenn décision dañuy ànd ak yow <laughs> dañoo beru de dem fal feneen ce qui s'est passé moom wax dëgg yàlla nekkul lu ñuy waxaat waaye nekkul loo xam ne kenn da koy fàtte mm. pour wax wax ci télé bi na ñëw mm. dañu amoon boo xam dañuy xëy suba ba ngoon di la saaga nan la moo tax ngay tudd Karim ñam nga ñam naa keneen ak keneen ñam na ñu ci bari ñam nañu Karim kenn doon ko dafa tey li Doudou di wax nii tey la neex mu koy wax. Hmm. saa boo taxawoon ne ana Karim xanaa Karim du ñëw ñu commencé def seen association de malfaiteurs di saaga waate ana ñi ko doon saagaa ñëpp dégguñu ko gisuñu ko. ñi àndoon ak moom dégguñu ko gisuñu ko yaa ngi wax sànq ci meeting de clôture bi. Hmm. bi parti soci euh, parti démocratique sénégalais ñëwee ànd si euh, biir coalition Diomaye ñi ko représenté woon gis na leen. kenn ka hmm. wàññeeku nañ ci ndaxte Adja Ware Ware ñu ne lañ ko dàq. ak li nga xam def na ko ci biir parti démocratique sénégalais kenn tudd Karim kenn ko laal. te moom kenn ko gis. Ah. xeex kañ da nga cee jiitu. mag yi dañu naan yóbbante galgal ubbu làmb ubbu làmb noo nekk Qatar géré ma Dakar bokkul boo bëggee Dakar da nga ñëw ba ñu commencé wax naan Karim Wade mi ngi ñëw Karim tey lay ñëw ñu nga gis ñuy peinture ndaw ña bale bale bale bale bale ba bale waale buntu kër ga ba bale VDN bi peinturaat ko defaat ko jaune ba yokk ca ba mu saf saab mm, mm, mm, ñu naan Karim ngi ñëw ñu jékki-jékki ñu ne jeudi lay ñëw ba ñu naan Karim a ngi ñëw ba léegi ña ci juddu woon ña ngay sëyi te parewul sax pour ñëw léegi bopp parti ak li mu jot def Sénégal da nga koy bàyyi mu dee ah da nga dul jël wala amul keneen ku am compétence ko xam ne war nañ ko mën a jël mu mu mu jiite mu jiite papa Abdoulaye Wade dama xaw ma Abdoulaye Wade la mu doon def def na ko lu muy prouvé prouvé na ko bokk na ci histoire bu Sénégal kenn wax wax ko léegi yow mi ñu fi jël nga ne yaay doomam yow yaa ngi kataar diggante sa ay business diggante leneen ak leneen ak leneen léegi ñu fi nekk nii jël leen ñoom ñu ñu ñu jiite waaye yow ñëwoo yónnee woo ba pare bëgg jiite gëwma ñu am ci dara de ñoom ak parti socialist moom nga xam ne ay paak ay maire ñoo fa nekk jamono Senghor ba léegi ñu géré ñu jékki-jékki dem benn boo ko yaakaar bëgg ñëwaat bokk mënta ne opération buruxlu bi dañ ko sécuriser opération sec buruxlu ah. dañ ko sécuriser dañ fa def ay ñax yoo xam ne daf lay maas booy jàll di tëb amatul fekkoon bàyyi nañ ko ba léegi wax dëgg yàlla ñu bari ñëw nañu parce que ñoom dañoo tàmm tàmm pouvoir tàmm pouvoir ba nga xam ne ku ñëw fa la ñuy ñëw ñam ñoom bu ne dañ ciy ñam ñam nañu Senghor ñam Abdou Diouf ñam Abdoulaye Wade bëgg ñam Diomaye ak Macky Diomaye ak kii non mënul nekk loolu tamit kaa la mais frère semence <laughs> si t'adore mais ci nag pratique ancienne yooyu fi amoon wuyu ma pratique yooyu amoon hmm. ñi fi nekk dañ ko war a bañ parce mënuma gëm tey ku ñëw nga tooy ànd ak moom ku ñëw nga tag ko ne ko yaa baax tey bu leen bàyyi woon ñi fi nekkoon di xeex wala ñi fi nekkoon ànd ak euh, ancien président de la république Macky la dañuy ñëw dugg ci biir Sonko ak Diomaye te nag ñooñu guerre bu ne guerre nañ ko mm-hmm. nañu bàyyi ñiy guerre seen guerre mm-hmm. Karim Wade bu fekkee mënta ñëw am nañu siège am nañu ñeneen ñoo xam ne ay député lañu am na yeneen ndaw yoo xam ne war nañu mën a def mbir bi mm-hmm. boo ko trouvé sur le web nga trouvé waale Karim Wade ca nañu ko wax mu ñibbi Sénégal bu fekkee mënut a ñibbi Sénégal ñu jéem a xool ñi fi ne. ñooñu doxal. dëgg yi nag moom pour daaneel ah. Mm. Mm-hmm. yaa ngi wax ku amul parrainage doo dem ku amul mbooloo doo dem léegi nag pour nag seen bopp ñu xool nag ku ci nekk ndax yow am nga looy peser politiquement. Mm-hmm. ñoom lu ñu wax a def tey mooy ku ci nekk demal sa bopp na Pastef demal boppam. Mm. Bougane demal boppam. Mm. Thierno Bocoum sama xarit ba demal boppam. Mm, Thierno parti socialist mais nga xam ne fu mu nekk ñoom dañu nekk dans la coma jéema a xool ndax dañuy dem urgence wala dañ fay jaare faatu waaye buñ ñu demalee seen bopp ku nekk da nga xam. d'accord paa bi dem waxoon na xaw ma fële ca dëkk ba wala yu fi di leeral soo toogoon di jàng alxuraan nag naan neex na baat. mu ne ko xam ne bàkkool bàkkool lépp di leer bàkkool lépp di leer incha allah jàkk jaa ngi ku mën na ñëw na na nootu ah. du dëgg ayca fi mu toll nii caporal yow defi nga laaloon am na solo bugaan nag wax dëgg yàlla a àndoon ko kon xam naa sa wëllëre bu baax la ànd ak tàkkalikoo ñoo ànd comme sëy rek tas dagane sëy noonu la tas dagane léegi ci ànd yéen ba ngeen doon ànd nga ne bugaan bu demee ci législative yi du du am dara beneen biit it nga ni ñi nekk fii di wax jamono ji du ñu ay opposant ay frustré lañ foo ko teg. waxuma du am dara de damay naa am parrainage bu ko def. Ah. te parrainage bi yoon dañ koy changé. lan la ñu changé bu ñu demee noonu de. lan lay demee da ngay jël sa fiche de parrainage dem wute ay parrainage ñëw dem conseil constitutionnel matuloo suñu rejet bi demee noonu léegi bala ngay jël parrainage. da ngay dem caisse de dépôt et consignation. Mhm. jox la sa quittance ba pare. waaw parce que am na ñoo xam ne amoon nañu parrainage te ba ñu ñëwee conseil constitutionnel fekk ñu fay ñu seen. du 30 millions de. waaw. 60 mhm. millions lañ koy exemple. 60 mhm. millions nga dem caisse de dépôt et de ñu jox la sa quittance ba pare jox la sa fiche de par nga dem euh, DG ñu jox la sa fiche de parrainage bu la jox sa quittance dañ la wax ne la tant que amoo 5 pour cent perte nga bàyyi dootoo gis dis 10 candidats ci réew mi de 250 candidats. ku ci ne dem wuti fiche ñoo xam am ñoo xamante ne vingt vingt vingt kii lañ amoon vingt parrainage mm-hmm. am ñoo xam amuñu woon mille nekk candidat rek pour après xool nañu def ba ko dugg ci coalition yi ñu dem dem déposer ñooy rejeté na leen am ñoo bu ñu jëlee quinze de dépôt rek consignation mm-hmm. muy joxe nga sa caution ba pare mais caution boobu ngay joxe nag tant que amoo cinq pour ci élection yéen jëm perte ko mm-hmm. waxuma nag ne buggaan du comment dirais-je du am dara du am dara kii am dara ñun yaakaaroon na day am dara ci élection yi. mais yéen justement pourquoi euh, pourquoi justement Bougane n'a jamais réussi à ce que mu franchi barrière au moins ne serait-ce que dajale ay pare. voilà. luy problème bi ak li ngeen wër dëkk bi yëpp. gis nga ci wàllum parrainage lu leen manqué bay rek ngeen amul wala mbooloo bee leen topp loolu dañ leen nax. waaw xam nga tey fa ngay dem ci dëkk yi di wuti kenn ku fa représenté Bougane fekk nga ko fa sans yu représenté Ousmane Sonko ba Mm-hmm. amu ngeen benn base bu ngeen xam mooy bi ñu xaw a tardé noonu. dëkk bi ngay dem pour wuti benn Pape Moussa Pape Ousmane bu fa représenté Bouga. Mm. fekk nga fa sans Ousmane Sonko. léegi doo am. Mm. nan ngay amee. cent un personne lañ cent yi Ousmane Sonko lañ faral moom la ñuy parrainé ñu ñëw ak ñu ñàkk ñëw wuti woon nañ ay parrainage am nañ ay parrainage mm-hmm. am ngeen moom déposé nañ ñu recalé ñu mm-hmm. Bougane nee na deuxième tour bi waxul lool de. deuxième tour Bougane daa daa gëddoon sax. lu tax ñu recalé leen. deuxième tour daa gëddoon de. Mhm. waaw ban deuxième tour. bien dañoo dem deuxième tour deuxième deuxième tour la ñu yóbbu woon tamit da nga fàtte. ah pour ngeen andiwaat. <laughs> waaw waaw man bu jóg bu géey di andi kees gi. boobu daa gedd. mu mu gedd da bàyyi naa. géey original moo ne gars yi déedéet ñun bàyyi wuñu. Mm. dem wutiwaat ay parrainage. loolu tax mu bàyyi du ko découragé na. na découragé na boobu. dajalewaat ay parrainage mm. gay original